Salla bi Mustafa seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim barke Seexul Xadim barke xasida yi mbokki taalib ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziar di leen balaq xamal ne ñoo ngi ci barab bu tedd muy maam soxna Asta Walo Mbakke mu nga xayante ni mooy waajuru soxna Jaara Buso te jii di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru euh, décembre ñëwoon fii nag ziar si ko di ñaan nag yàlla na tëbi Sëriñ Tuubaa ziar bi ñu koy ziar yàlla nag soxna si nongul ñi ñaanal nag ci liggéey bi mooy Aline boobu jës ak euh, sëñ John Ka ak sëñ Abdoulaye Diop Darou Hasanaat ak soxna Anta Thion ah, ak sëñ Naar Xasida ah, liggéey bi nga xëy rek moom lañu ñu fekk fii muy liggéey bu kawe noonu fu ñu ñëwee Touba incha daa ñëw fii siyaar si soxna si door a dem Porokhane siyaare soxna jaara loolu nag ñu ngi ñaan yàlla nante sëñ Touba képp ku dem murit yàlla na ko yàlla jàppandil te lu fi waaye ñaan yàlla na ko yàlla nante sëñ Touba nangu ci barke sëñ Touba soxna si nga moo fii wax dëgg yàlla barab bu tedd la barab boo xëy murit yëpp war nañ ko di ko di fi teew di ko saytu ndax lu waral yoon wi fii la bàyyi ko ndax waajuru soxna jaara di bu ñu bu ñu amee Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul ci soxna si la dale kon xam naa ñu ngi jéemal foofu suñuy kàddu suñu àll yi ñu wax xam naa sëñ Ablaye Diop mu am ci soññe ak yooyu bu noppee ñu laaj jëriñ ñi nga xëy moom ci barab mu mën a baaxee ci loolu jërë ngeen def aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani salli wa sallim wa barik ala sayidina walana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ñoo ngi leen di siyaare ci barab bu tedd bii nga xamante ne fi lañ nekk tey mooy barab bu maam soxna Astou Walo di waajuru soxna su tedd ji di maam soxna jaaratullahi di waajuru sunu sang sunu sëriñ sunu yaakaar Cheikh Bamba Xaadimu Rasuul xam ngeen ni barab bi sore naag lool Touba sore ak lool njaarim ay sore laa ci barab yi àdduna bi yëpp ndax gox bi mu nekk mu nekk ci ginnaaw daanaka kafrin soxna su tëdd si tëdd fi tey jii mbooloo di jóge fu ne ci àdduna bi di fi dikk loolu nag liggéey bu rëy moo koy maye ndax jëlele naa àll bi ngay romb jëlele naa wax dëgg jumtukaay yi nga xamante ni manqué na ci yoon yi ba ba nga yegg si fii moom mu nekk fi tey ji nit ñëpp di dikk ba fii di ko siyaare si am na lu waral loolu loolu nag ab liggéey la boo xamante nii jaamu yàlla bu sell boo xamante nii day tege ci sunna moo koy maye doy na ci sëkk rek moomoon maam soxna jaara waaye amaat set bu mel ni cheikhul xaddim amaat yeneen sët yoo xamante ni ci mel ni doomi cheikhul xaddim yi nga xamante ni ñëpp tedd loolu day wane ni fayag suñ boroom la nga xamante ne du yam rek ci ko liggéey waaye day law di ci misaal bi ma ciy jox rek ci barab bi ni mu soreek ni ko nit ñi eh, wursee ak nit ñi di fi siyaare si dafa am ci jamono solution Cheikh Mbacké ma koo xamante ni da ko mas a jox ab ah, dem seeti pàkk ba del si ni ko Mbacké pàkk bi dafa sori Serigne Cheikh Mbacké radiyallahu taala anhu ni ko ana lan la ñuy jege ba mu sori waa ji ni tekk mu nu ko da fexe ba amal njariñ nit ñi foo nekk ñu fekk la yaakaar naa ne barab bi kon bokk na ci misaal yooyu mooy amal nit ñi njariñ amal am bi njëriñ amal jullit ñi njëriñ ba fi nga xamante ni nekk na fi nga mën a dox kilomètres yu bëree bëri ñenn ñi jël saxaar ñenn ñi jël ay avion ba yegg si fii ngir sàkku barke sàkku ñaan diis fi seen i soxla yi àdduna yu àllaaxira kon Serigne Aliou li ñuy wax rek mooy lépp luñ fi jëlee yàlla nañ ko bokk ak jullit ñëpp yàlla na suñu borom yërëm jullit ñëpp bu baax na njaboot bu barkeel njaboot bu dundal lislaam njaboot bu wattul lislaam ndax soxna si bokk na ci ñu wattu lislaam ndax moom da daan jàngale alquranul karim bari na ñu jàngal ñoo xam ne sax ñoom dañ daan nattable naan soxna si ngir diggal ma ndax góor la wala jigéen ndax sol gi mu sol colu góor la goo xamante ni ay jàllaabi kaalawu ba kenn du gis lenn ci ci cëram loolu kon jigéen ñi war nañ ci roy bu baax a baax xam ni jaamu yàlla bu sell rek mooy maye ndam ci yoonu lislaam kon ñoo ngi dégg lu baax ci kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaw euh, asalaamaaleykum mbokki tale bi ñu ngi leen nuyu di leen ziar baax a baax a baax di siyaare mbokk yëpp waaw barab bi de fii mooy barab bu soxna Mame Asta Walo euh, moom mooy waajur soxna Diarra Bousso maam yi sëñ Touba naa ne borom Touba fii la defee léppam euh, mën fii la soxe ko ci gàttal daal soxna si moo waajal moo ko moo ko waajal sëñ bu mag bi sëñ Fallou sama bàyyi nef na ma nee na sëñ Fallou mës na fi ñëw di ba génn daal di génn taxaw ci bunt bi daal ma laaj leen boobu ñëpp ngi taxaw mu daal ma laaj leen moom sëñ Fallou njaag njaag njaag njaag njaag dama dégg wolof naan njaag njaag njaag luy njaag mag ñëpp ne ko ah Mbàkke njaag dégg nañ naan njaag njaag rek de mu daan mu daal di barab bi daal na njaaga ngi njaaga lu jën njaaga soxna si yooyu njaag daal soxna si moo gën a gaaw góor waaw daal soxna si moo gën a gaaw góor nee na aju moo ci gën a gaaw waaw moom soxna si nekkoon na nag koo xam ne moom jàngale ko daal alxuraan la woon waaw jàngale alxuraan la woon xam-xam de wax nañ ne mag ñu bari jaar nañ fii ci moom jàng fi eh, mag ñu bari ci réew mi jaar nañ fii ci moom jàng fi eh, borom Tuubaa eh, wax nañ ne fii la jàngee Eh, wax nañ ne fi la jàngee daanaka ba alxuraan defe naa sax alors defe naa sax fi la fi fi la jàngee alxuraan ba mu ba wàcc eh, xasida gi ñuy wax sindi di fii la ko bindee waaw fii la ko bindee moom sëñ bu mag bi waaw bu ñu génnoon tuuti rek moo leen fi mu ko bindee ci garab gi daxaar gi mu ko bindee waaw wax nañ ne ci daxaar gi la bindee xasida sindi di waaw kon daal ci tënk ci gàttal daal la sëñ Fall waxoon rek lu jin njàgg soxna si ay njàgg eh, soxna si ay lépp fii la lépp bàyyi ko waaw fa tabarkal kon mën na koo tënk gum foofu rek ci sama xam-xam bu gàtt ci dégg ci mag ñi fi nekkoon njëkkoon a nekk eh, ci laa ko déggee waaye du sama du sama xam-xam sax waaw sama waajuru góor mu fi nekkoon nag moom ku ñuy wax sëñ Cheikh moo fi newoon gannaaw gi bi mu wàccee nag ah, dama sëñ bi ne naa fi ne waaw loolu ma wax noonu ci moom laa ko déggee man mu nettali ma ko waaw kon soxna si moom mooy lépp moom moo war a lépp moom la suñ Fall wax nee moom moo war a lépp nee mooy njaag lu jiit mooy njaag nee na moo ci kaw kon nag yàlla na fas yéene aajo fajal la suñu aajo fajal aajo mboolem tilit waaw jërë ngeen jëf taxal ko ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax waaw man Saliou laa tudd Saliou Sarr laa tudd waaw man Saliou Sarr laa tudd waaw jërë ngeen sëñ bi ñu ngi ñu ngi leen di nuyu di la ziar euh, waa rajo Xassida online Touba Monde bi ak euh, waa tubaa Monde bi TV ñoo fi ñëw euh, doon am reportage bi ñu def fii barabu Mama Sawa la ak fii barabu Soxna Diarra. bëggoon laa laaj maanaam cosaan kon loolu lañ bëggoon njëkk a ubbee laaj bi su ko defee door a am yeneen laaj yoo xam ne dañ koy laaj. Ah, noo noo ngi leen sant bu baax ci yoon ak jéego yi ngeen ak yitte jéeg di ngeen di ngeen am ba ba ñëw. ci soxna si di ko nemmiku si ngir ngir njëriñal lislaam bi ak njëriñal taalibe bi ak njëriñal bokk yëpp ak fu ñu mën a ne ci biir Sénégal ak bitim réew loolu defe naa seen ñëw gi loolu rek lay wundu noo ngi leen di ñaanal ngeen yàgg ko man te yàgg ko de suñu boroom yàgg leen ko man lool cosaanal fii nag moom cosaanal nekk soxna si fii moom de xam ne maam Mor Anta Sali mi borom këram moo fi nekkoon àndoon ak waa këram yëpp jamono moo ko laajoon boobu fi yàggul nag moom mu wàcc bu liggéey yàggul itam Maam Mor delluwaat ci ca réew ma nekk ak Lat foofu ci ci ci ci li ci paataar loolu moo tax maam maam jaar des fii waaye moom ñi àndaloon ci waa kër gi ñëpp dañoo dellu ci borom këram di Maam Mor Anta Sali mi nga xam ne tey mu nga tëdd ci li suñu borom moo ko dogale noonu looloo tax mu des fi nii loolu mooy ci saanal mu nekk mu mel ni gis nañ ni euh, barab bi am na ay coppiku at yii yëpp gis nañ euh, lu mel ni euh, Sëñ Muntaxa def ci ay liggéeyoom solo mën nañoo xam naa buñ ma mënee am tuuti rek ci eh, maanaam barab bi liggéey bi tàmbali beeg ak euh, fi mu ci tolloog yi demee noonu. Kaakum moom mooy wane boppam bu ngeen ko gisee ci image di ngeen gis maanaam fi liggéey bi toll wax dëgg yàlla ñu koy liggéey jàmbaar lañ ay waaye loolu lépp seen yéen ak seen positif yéen positif taari bi fu àgg fu liggéey bi àgg wala nu mu mel ñoom yàlla ak seenu ñaq ñoo ko ñoo ko fa àggale kon moom yéen la ñu ngi ci bitim réew wala ñu ngi ci biir réew mi liggéey bi ni mu mel nii lépp ñaqu taalibe yi ñoom dëgg la suñu saabu siir mooy ki nga xam ne moo ko moo ko moo ko xalaatoon taxawal ko nii bi mu fi bàyyi ko itam suñu muntaxaa li ko ci war lépp ci jéego yu pëstef yu taalibe yu diine def na ko ci ba liggéey bi tey àgg fii mu àgg toll fii mu toll mel nii mu mel suñu saa li mu waxoon ba mu koy sos mooy taalib yi yëpp na ko ànd ak taalib yi ko këllëre ak daayira Maam yi kon la mu fa sante woon ak ñoom kóllëre yi ñoom ña nga ca wax dëgg yàlla kóllëre googu moo àggale liggéey bi fii mu àgg tey. mu mel ni tamit eh, gis nañ ni eh, njabootu ku tedd gi daanaka mu mel ni eh, fonk nañ barab bi loolu ba gis nañ sax mel na ni kenn ku ne am na am na fi màkkaan mu mel ni loolu xëy na jombul am lu mu wundu loo xamante ni xëy na suñ ci mënee am ab mm, kii tuuti rek ndax xam nañ dayoo bi nga xam ne soxna si xëy na ñun amuñu ko waaye na xiirtal mel na ni sëñ Baara sax bi ñuy sañ bi ñuy def euh, première pierre mel na ni moo ñëwal boppam la am ay ju lu mu ci junjoon xëy na jombul. waaw xam naa loolu moom mooy mooy képp rek maanaam lépp xer soxna si moom wétali gi sëñ Tuubaa waxoon ci moom ne dañ ko war di wétali dafa fa ne dafa wét dafa bëgg ñu wétali ko loolu mooy lii ngay laaj léegi mooy dina sëriñ see kilifa yi daayira yi ñëpp ñu ngi fi wut ay kër te loolu secret boo la man maanaam lay mbóot ma rek moo di la sëñ Tuubaa bëggoon maanaam ñu wéttali soxna si kon koo xam ne kii am nga fi kër bokk ci ñi nga xam ne yaa ngi wéttali soxna si nekk fi ni nga xam ne noonu la soxna si bëgg ku ko fi nekkee ci wetu loolu yi moom moom yaa ngi yaa ngi ca bëgg-bëggu sëñ Tuubaa ndax lu mu bëggoon la lu mu wax la lu mu ñaanoon la kër yéegi yëpp loolu moo moom moo ko waral kon nag moom ak sant rek ci war képp koo xam ne kii yaa ngi yaa ngi fi amagun nga ko fi moom na nga xam ne loolu moo ko waral bëgg-bëgg suñ tubaal la woon xalaatam la woon ndigalam la woon koo xam ne kii amagoo ko fii itam yàlla na la am ko fii ci barkeb soxna jaar ndax wétti lii soxna jaar moom dal na xel ne war ngaa mën a bokk ci ñi ko wétti li ëllëg mel ni barab bi yombul am na ñu jiitu ñoo xam te ne nekkoon nañ fi lu jiitu nga fi nekk ndax mën nañ ci am ñu ci xam ak tamit xamaale tamit tur yi waaw ah, man man Baye Baara Baye Baye Aliou Tall laa fi wuutu Baye la woon son bokk nañ fi nekk sax ndax ak mag rek ko fi jëlee woon ak mag rek dafa dem ba ba tëri loolu rek ko fi jële waaye euh, kilifa ko fi tegoon sëñ Basiru ko fi tegoon moom muy liggéey bu nga xam ne ndax liggéey njabootam ñëpp it ñu ngi fi moom laa la moom laa ko moom rek ko fi mos a nekk. waaw moom ndax ma fi nekkoon bi bàyyi muy bàyyi baarataal bi ñu wàccee li bi bàyyi baarataal wàccee liggéey ñu denk ko liggéey boobu mu wiyal ko. Mm-hmm. ba màggat moom itam. tasanteeg man itam sëñ bi jox suñu saabu si jox ma ndigal loolu ma awatu ci bi. ñu ngi lay jaajëfal mm. jërëjëf. jërëjëf bisimilah rahmaani rahiim barke xaadim rasul ci barabam bu tedd bi ñu nekk te ji ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre ñu àndoon nag ñëw doon siyaare fii ci Porokhane jaar naawel ci waajuram bu tedd ba di soxna Mame eh, ñu àndoon nag ci liggéey bi nag sëñ Abdoulaye Diop Darou Assanaat ak sëñ Aliou bi sëñ Jon Ka ki jot wax ji mooy sëñ Naar Xasida ak soxna Anta Thion di ñaan ci barke Seexul Xadiim liggéey bii nga xëy ni moom la ñëw fii ak mbokki taalib yi ñu fi dajal euh, ñu daje ngërëmul sëñ Touba te sëñ ñu suñu xol yi bañ mën a boole ba a liggéeyal sëñ Touba te ñu fépp di ñaan ci barke alxuraan ak liggéey bi nga xëy moom la soxna def fii ci Porokhane ndaje ci ngërëm ngërëmul sëñ Touba suñu siyaar mu nangul na ko te defal na ko fab siyaar gën a kawe ci barke sëñ Touba xasida yi ñoo ngi siyaar mbokki taalib yi yëpp di leen jàmm di ñaan adduna bi yëpp jàmm am ci barke Sëriñ Tuubaa xasida yi yal na Sëriñ Tuubaa xasida yi feete fépp ñu ngi leen sant di leen gërëm di teew koy déwéni déwéni déwéni déwéni ci barke te man ngi yokk gi lépp am ci barke Sëriñ Tuubaa xasida yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ak sa jërëjëf sëñ Naar kon sëñ Aliou noonu ñu ko waxee rek tey jii ñoo ngi xëyee ci Cheikhul Khadim sunu sang sunu sëriñ jaar ci maamam maamu soxna Aswalo ci wéy juróom tëdd bi di maam Soxna Jaara muy barab yoo xamante ni wax dëgg yàlla diggante yi soree na benn baatin moo fi ne ndax eh, barab rek lañ dut nattable ni boo fi ñëwee da nga fekk ku tëdd wala ku tëdd fekk la fi tey bi ñëwee dañoo ñëw rek teewal jullit ñëpp waaye rawatina taalibe yi nga xamante ni bàyyi nañ leen ginnaaw ñu nekk fële ci Touba Italie ak fépp ni ñu ngi ci Touba bi ñoo ngi leen ci wutu ci sunu jëmm xeebu yi ba lépp luñ fi am ñoo ngi ñaan suñu boroom defal leen lépp luñ fi am ñoo ngi ñaan bokk kook ñoom uh, wax dëgg yàlla uh, yàlla na dugg ci siyaare bi nga xamante rek moom la ku tëdd ko waxoon ca sarsara inna lazina ila sarsara xat xasadu ziyaarati faraxu daarini aw zara uh, loolu rek moo nu yëkkati muy tànk yoo xamante ni tànk feddali wóoreel ak sunu sang sunu sëriñ Seexul Xadim ba lépp loo xamante ni taq na ci moom ñu koy gëstu di ko xeeñtu waaye ñu ci kañ sunu mbokk jigéen ñi di leen xamal ni soxna si nga xamante ni moo nekk fii li ko may lii rek mooy jaamu suñu borom subhanahu wa taala ko ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye topp sëriñam ba liggéeyal ko ba am li mu am tey ndax dañuy faral du bu ne bu ne soxna jaar ñëpp jàpp ni mag mu màggat mu fi yàgg la ci at waaye dañuy wax ni fanweeri at ñett ci la làqu liggéey fi liggéey bu bi nga xamante ni kenn ku ne yaakaar na Cheikhul Khadim tey ak ëllëg loolu nag la ko ko may mooy li moo jiite rek mooy jaamu yàlla bu sell jaare ko ci bunt bi di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye liggéeyal Maam Mor Anta Sali Mbacké loolu nag roykaay la boo xamante nii jëlil naa jigéen ñi waaye góor ñi sax dañ ci roy ay jikko roy ci wax dëgg aw doxin roy ci pësteef waaye roy ci ak bëgg ndax loo bëggul rek daanaka doo ci suubu waaye li ngay woote di ko bëgg maam da nga koy nuru daal mooy loolu mooy kenn ku ne daal li nga xamante ni yaa ngi koy jiiñ sa bopp muy ab taalibe li nga xam ne yaa ngi koy jiiñ sa bopp boo dee soxna nga ni am maam jaara nga war ngaa jaar ca tànk ya nag te bàyyi caaxaan yi kon sëñ Alioune dox bi tey ji loolu rek la woon siyaare si woon ak sàkkul ñaan jullit ñëpp sàkkul ñaan taalibe yëpp yàlla suñu borom wàcc jàmm ci jullit ñi kon wàcc jàmm ci taalibe yi yokk xéewal yi ba képp koo xamante ni yaa ngi yëngu fenn ngir bëgg wërsëg wala nga bëgg xam wala nga bëgg barke suñu borom defal ko ba nga dellu si sa njaboot bokk kook ñoom bi jaay sayyidil awwalin wal aaxirin sayyidina mawlana muhammadin barke maam Cheikh Fall barke bi soxna si tamit si asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa dara nii suuf si nii la si daan taxawee nii la daan jullee suuf si. bu mm-hmm. paree toog nii fere yi toog yi mu leen tombal tomb tomb yu tedd yooyu. Mm-hmm. loolu war nag bi suñu a Gaynde Fatma defaat yeesaat jàkka ji mu bàyyi mu bàyyi suuf si nii. Mm-hmm. ngir ngir ngir taalibe yi man si am lii ñu si am nii. ñëw di si barkeelu. waxte maanaam suuf si foo xam ne leer na Sëñ Tuubaa daanaka toog di di fa di fa di fa jullee. foofu moom eh, eh, ma la fa ne ay ay ay tawfeex yi moo tax karawu ko bi muy karaw jàkka ji fii nga xam xamante ne moom fii la moo tolloo na fii sëñ bi daan taxaw mu mu mu bàyyi mu bàyyi ko nii hmm. loolu sabab moo sabab suuf si sëñ Cheikh moo koy yeesalaat ni waaye baraag ab baraag fi nekkoon jamono sëñ Tuubaa nekkee hmm. moom mën ko yokkaat kiyaat ko ni fii nag moom moo tolloo na fi daan taxaw di julli hmm. xamante ni masaana taw it bay bay taa bay lool sax wax nañu noonu noonu la noonu la si daan jullee waaw daaw daaw fi daaw lal dara waaw daaw daaw si dal dara waaw naan ñoo gis bu ma saan tawbal kii dafa ñëw da nga gis maam loxo yi ak kii bi ni ni ni ni doon sukkee di jullee ak tànk yi mm. waaw waaye daaw daaw si la dara waaw sëñ Moussa Ka daan ko xamoon fu mu fu mu fu rakka koo xamoon jar na dem di fa jullee ñaan bi abadan hmm. rakka la wax te tey dem di ko def màggal ak siyaare hmm. fii nag fukki at ak yi mu fi nekk kenn xamul nu toll hmm. kon li fi nekk ci ay ngëneel ay xarbaax kenn xamul nu toll waaw fii laa liggéeyale sama borom ba sama defal na ma fii wenn fepp suuf fu nekk wecc la kaamil alxuraan waaw nee na weer na fepp suuf wu ne ni alxuraan ni alxuraan amee daraja nee na weer ne waxut suuf si dana weer na fepp weer na rek boo jëloon moo nga ñooy ma xam kon fii li fi Sëñ Tuubaa wax waxu maanaam waxu ko fenn li mu fi amit amu ko fenn barab la boo xamante ni barab bu tedd la barab boo xamante ni képp kuy ab jullit wala rawatina ngay am muridu la war nga war nga war nga ñëw waaye na ñëw fi nag moo yombut ah. waaw maanaam moom waaw ñëw fee yombut nag Sëñ Tuubaa nag moom maanaam moom ni ñaan maanaam day tànn day tànnal boppam ay nitam andi andi leen fi loolu dëgg ndax maanaam da ngay xool barab bi waxuma la waxuma la waaye maanaam mu leer la kër gii nga nga nekk nii maanaam boo duggee si biir kër gi foofu fi teg sa tànk bu la neexee nga war ne fii Sëñ Tuubaa teg na fi tànkam te loolu kenn mënu ko dindi waaw fii ngay ñëw dox si suuf si foo fi dox Sëñ dox na waaw waaw kër gi boo xasee dugg si biir kër gi foo fi teg sa tànk rek jàpp man bu la neexee nga waat si arxuraan ne Sëriñ Tuubaa def si tànkam waaw ndax li mu def fii moom def koo deful fenn ndax daan si kër gi la fii la nekkoon kër gi la newoon waaw kër gi li muy kees yi li muy rëy rëy li muy bari bari kees yëpp danaam dafa sëñ bi dafa daan dox mm. te tànkam tànkum neen dafa daan def daa fi so ay daan waaw sëñ Tuubaa monsieur wax nañu daaw fi sol dàll mm. wax nañu nawet wax nañu nawet nawet nawet dafa daan sol ay dàll te dàll yi dàll karbat la daan doon mooy dàll yooyu xamante ne dénk mm. euh, dénk mooy daal dàll karbat mooy daal dénk yooyu mm-hmm. moo la daan te nawet ba nawet la daan doon waaw waaw waaw jàpp sax wax nañu sëñ sëñ bi daaw nangu maanaam ku ko fi def waaw moom ko tedd gi bu ma saan di jàpp sax wax nañu dañ ko daan dékk dañ ko daan dañ ko daan dékkal jàppit jàppit mi ndax ndax ndax ndax suuf si maam euh, maam tedd gi pàkk bi suuf si tedd. Mhm. waaw loolu loolu mooy sama sama suuf. kon jii képp ku fi ñëw rek war ngaa santaa Sëñ Tuubaa bu baax a baax a baax a baax barabu ñaanukaay la nag mën ngeen a ñaan li ngeen bëgg lépp su noppee mu yóbbu leen si néegam bu tedd bi mhm. ngeen ngeen àgg fa siyaara fa waaw ñaan loolu xam wax naan boqatul mbaarak boqatul mbaarak mooy boqatul mbaarak moom jeexal na jeexal lay wax pàkk buñu barkeel waaw pàkk buñu barkeel wax fi la waxaat ne lowa xitaabi xamatal sa si la daa boq xat yee lëtt yi tuniru bala daa mhm. waaw tuniru bala daa maanaam mooy maanaam mboole mbooleem fa ak leer am rek mbooleem fa ak leer nekk leer googu fii la bawoo waaw ah. ah. waaw foo gis say mu am mu am dara ci ak leer ak leer am fa mm-hmm. leer googu nee na fii la bawoo waaw mm. ah. fii fii fii foqaxatal la si te niru bala daal waaw kon fii li fi sëñ wax moom maa buñ ko toppoon fii ba suba du jeex mm-hmm. waaw fii boo xoolee mag ñi gis ñu àndoon ak sëñ Tuubaa ñëpp fii la leen sëñ Tuubaa defaree waaw say yi ngay dégg ñu ne te lépp mën naa ne fii la xewee mm. waaw ndax fii sëñ bi defee yàgg fee yàgg lool kon fas leen li ngeen bëgg lépp ngeen ñaanal lañu ñeen tamit bu ñu noppee yàgg waaw sëñ bi nangu lépp ak sëñ Tuubaa amin amin ak sëñ يقلد الحسن رضي عني سبت ديداني عليه رضوان بجلداني رضي عني الخلفاء sal ila الذي barab bi ñu nekk moom waaw barab bi mooy bayti rasul waaw bi wax nañ ne fii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane si woon Sëriñ wax nañ am na si néeg bi fukki fan ak juróom mooy barab bi ñu nekk nii néeg bi wax nañ ne maanaam bokk na ci néeg bi nga xamante ni sëriñ bi maanaam ci néeg yi mu gënoon a fonk ci kër gi si la bokk te wax nañu ne daana fi nekk lu bare bare bare wax nañ ne daana fi def it ay xalwatu yu bare bare bare ci néeg bi wax nañ ne comme foofu ñu jógee léegi si jàkka ji bu masaana julli ba noppi toog foofu euh, tombal mag ñi di waxtaan ak ñoom di leen tombal léeg-léeg bu ñu laaj dara wala mu leen a tontu daa leen xaaral ma laaj sama ba noppi wax nañu si néeg bi lay dina dugg ab diir mu ñëwaat ne sa borom nee ki nangam kon néeg bi néeg la moom it boo xamante ni yaakaar boo doon wër bu mel nii doo gis fenn boo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na fukki fan ak juróom nekk fii nekk kook Sëriñ Tuubaa fii si fii fii néeg bi maanaam néeg la moom it néeg bu bëri ay ay ay ngëneel néeg bu bëri ay ay ay ay mbóot waaw ay xéewali kase rek moo fi nekk waaw ñaan si barke Sëriñ Tuubaa lépp loo xamante ni maanaam ñaan nañ ko fi it yàlla na ko sëriñ bi nangu. waaw ndax te nañ si njot tamit néeg bi moom euh, néeg la néeg néeg bi yéeme la. am na loo xam ne sax daanaka doon ko mën a wax ay néeg bi yéeme daal la moom te maanaam comme nag wax bi ñu fi ñëwee nii ak ak weer bi ñu fi ñëwee nii weeru gàmm xamante ni sëriñ sëriñ bi moom yaakaar naa njaareem gi eh, fi la daan gàmmu waaw la daan gàmmu na fi ay at ay at yu bare bare bare waaw kon nag saa borom dogalee ñu ñëw fii néeg bi sax daanaka. li ci ëpp guddi gàmm lañ koy ubbi muy fanaan ba set waaw xam naa ko day taw feex rek moo moo maanaam ak ak ak ñaan gu nangu moo moo tax xëy na ñu ubbi ko nii waaye néegi moom daanaka guddi gàmm guddi gàmm lañ koy tëj yéen nag sama borom dogal na ngeen ñëw fi si weeru gàmm ubbi leen ngeen dugg fi kon loolu ñaan ko nangu la nag yàlla na sëñ Tuubaa boole nangu lépp eh, maanaam ñu yàgg fee ñëw ngeen yàgg fee ñëw yàgg ñu fee fekk parce que sëñ Tuubaa eh, ngeen jëf bari histoire yu ñu ci nettali yu bëree bëree bëri te Seexal Xadim ah, ci sayir man yoo xam ne léppam fii lañ ko defee mbàkke la feeñe waaye léppam fii lañ ko defee ci xuru mbàkke ki topp ci moom itam muy abibulahi mooy barab barab barab bu weex bi ngay gis kooku moom la sooma jaara mujj am mooy abibulahi kooku nag moo waral xuru mbàkke ndax nekk gi mu nekkoon fii bi sëñ bi jógee fii dem poroxaan moo waajuram ah, sëñ bi bi mu jógee ba mu jógee poroxaan nag ba ñëw tubaab yóbbu ci ci liggéeyam boobu muy def ci géej gi la ko suñu abi bu feeñu ne ko fi ñi nga ma bàyyi ma wéete bu doon yow dama la bàyyi nga wéete nii bi si Tuubaa ñibbi si ci géej gi ñu yóbbu ko gànnaar mu feeñuwaat ko ne ko nii nga ma bàyyi ma wéete bu doon yow dama la bàyyi nga wéete nii ñu jëlawat sëñ bi bu gànnaar yóbbu ko njaareem mu ñax sëñ bi nag lool sëñ bi daal yibal maam Cheikh Rafal ne ko de ko demal njaax sëñ Tuubaa moom fii njal ko daan wax demal njaax wattanam ajib bu moom maam Cheikh Rafal jóge fi moom dem njëkkër ma jiy sanc fa ndax maam Cheikh bu sëñ Tuubaa di wax moom déglu gis mu dem sanc njaax di ko wax ko sëñ Tuubaa mu ne ko waaw waaye danga weesu barab ba bu mu di sotti dem sant dëkk bu ñuy wax kër Bala Fall boo jógee Ndulo mu ne ko jege nga waaye du foofu daal di woo sëñ Mbay jaxna ko ne ko Babacar mu ne ko Mbàkke ma ko demal njawat ma ëpp moomee sëñ Mbay ñëw sant fii këram di liggéey di jox sëñ Tuubaa ba sëñ Tuubaa jógee nag njaareem nag ñëw fi ànd ak sëñ Balla Coro ak sëñ Demba Kebe mag ñooñu yendu si fi mooy bis ma la léegi di fukki fan ak ñaar ci aw diggi saa bàyyi na ne sëñ Tuubaa jógee njaareem yendu si te la fekk sëñ Tuubaa sëñ sëñ Modou Moustapha faran si sëñ bay di ko tàggal warga ba mu tolloo ci ñetti barab bi di sàmmat nee na sëñ sëñ Moustapha si génne ko Babacar mun na ne ko daa mel ne saa noppi daa farlu na xiit bay ne ko waaw waaw sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa la jariñ fekk nañ ci néeg bi sëñ sëñ bay fab yére yi ñu doon defaral kii bi toppale ko daal di maasal sëñ Tuubaa daal di kàbbar ñaari waxtu yi yooyu yooyu ba mu sëñee daal di <laughs> xanaa bett na leen ñu ne ko waaw dem bal France bett leen di waaw ñu ko waaw di mbagg Cheikh Abdoulaye ne ñetti baat fii ma doon wax ne du du ñëw ñoom nee na foofu dëkk bi daal di fees jël ba ba fas yëngu borom barke di nga koy am Cheikh Abdoulaye dëkk fees ne seen tubaab di nga pour mbagg nee na ba ñu toogee ba tisbaar jot mu ne ndax ku ma am noo dëng si ñu ne ko waaw mu ne Babacar ana jàkka ji sëñ bay ne teg sëñ tubaab mu rudd boppam ci tànkam jàkka ji dikk taxaw fii Cheikh Abdoulaye ba mel ni xam sëñ tubaab ko jàkka ci ko dara xata xaamati sëñ tubaab di ko xëcc ne dara saaba yi daa mel dënnu asamaan nee na ba mu jullee subaa ba noppi delluwaat ci néeg bi ba teg soxna bi mu ne ana ki noddoon mu ne maa ngi dama nodd mu noddal ba mu soxla teg soxna la wax sëñ sëñ mbay noonu ne ko li ñuy wax raam ak war mbootu fii laa ko def. noonu loo xese bii demee ci li ma ci saaba yi netti laa wax ne netti ma ne sëñ bi ma wax dii dii ma la wax ci sama baay ko jëlee te sama baay sëñ tu daal sëñ bay daal ànd ak moom dañ ci Cheikh Amadou Bamba hmm. loolu saa bay ne moom sëñ Tuubaa bi ñëw fi moom fii li ko fekk loolu lu ma wax jëmm ji nga xam ne mooy Abdou Boulaye itam ki nga xam ne moo ko fi denc moo doon defar kër gi Bala Fall Xeelere la tudd kooku moo doon bëkk néegu Mamadou Sali Mbacké Bala Fall Xeelere saa bay na ne keroog ba nga xëy sëñ Tuubaa na fi ne ko ana Abibu sëñ bay ne teg ne ko daala wan ko daala yebal ko wan ba demee la yebal Bala Fall Xeelere moomee ne ko dama ko di Babacar Abibu moomee mm-hmm. saa bay bi ñu mu ngi fekk bay fii di ñeent fukki ponkal mun ñëw sëñ bay ne ko sëñ Tuubaa de moom la yónni ne sama ne sëñ bay daa yegg suuf ne ko uhum nee na mu ne ko abibu moomee di ci taatu ñoom def laa ko dencoon ci detti mber ne ko lii detti mber la mu ne yi gas leen sama ne ñuy gas bay ak kii ne lii de ab ren la kee itam ne lee de ab ren la kee itam ne lii de ab ren la mu ne topp leen ren bi ni ñu topp ren bi ci ëkk bi nee na sëñ Balla moomee moo dagg ren ba xar ko foon ko ne lii neb neb la fii laa dencoon abibulaay daal di geer si yi booba jëwri ni sëñ mbay yi bàyyi ma sàmba ko mbër la doon war naa war naa man ñaari mètre mbër la woon mu ne ko gees jël gopp ne ko yow de maanaam man bàyyi ma sàmba ne ko ah sëñ bay ni wax na dëgg de bu ci baat mu jël gopp bàyyi ma sàmba ba teg ko ci daat ëkk ëkk bi natt xasab tecc ne ko maal ko sutte sëñ Balla moomee ba muy wan si barab bi sëñ mbay am na téeméeri ak ak ñaari fukk ak juróom wala neexee ku la neex ko téeméeri at ak ñaar moom sëñ Balla Fall xel am moom kooku moo wane si barab bi waaw waaw moo na wane si kooku wane si barab bi waaw noonu la mbir mi demee waaye nag nett yi dafay bari bari boo xam ne mhm. euh, ni ngay dégg ak liy am xëy na sax histoire moo demee noonu waaye daal li ñu suñu wàju nettal loolu ñu ci waaw yi des nag bu ñu demee fee itam ñu leer leen ci li ñu ci xam mhm. waaye nag du dañuy bëj dugg ci doyen boo xam du ko ndax li ñu suñu wàju nettal loolu la mën a wax ndax jamono yi moom day xaw a jéeme ci noonu li ma ñëwal sëñ Tuubaa gis nga fi leen tënk nii njaboot gaa ngi fii lañ leen bind moom kay Thank you. soxna soxna Aïssatou Diakhaté mooy waay bu jigéen waaw waaw sëñ Abdou Baax la Abdou Baax moo tudd waaw soxna bi tudd soxna Bintu Baax soxna Diakhaté la mooy waay bu jigéen soxna Diakhaté la di Abdoulahi la tudd uh-huh. soxna xarit kan soxna tuuti soxna Fatou tuuti la soxna Fatou tuuti. soxna Fatou tuuti soxna Fatou tuuti mooy wàññi ko bu jigéen. ñett ñi ñoo na ci. soxna xarit kan la Fatou leen nii kii dafa tënk. waaw soxna soxna xarit kan la Fatou. Mhm. ñi mooy ñett ñi mooy suñu wàññi. waaw mhm. mi soxna Ndeye Diop mooy kële soxna may soxna may jaxate soxna may jaxate nii ak sëñ ba jaxate mi ngi jógee ñoo mhm. may jaxate soxna may jaxate nii mhm. waajur kii sëñ Tuubaa moo ko yoroon mhm. yëkkati ko joxaat ko sëñ Masamba sëñ Masamba Mbakke rakam am ci sëñ Moodu may mag sëñ bu baaxee Mbakke ak sëñ bu baaxee ñaar ñoo la ci am sëñ moo ko yoroon mooy waajur mooy waajur mooy waajur kii sëñ Tuubaa ko jur noonu la demee kii itam xam nga da ci bari loo xam ne boo ñëw fii daanaka duñu ko mën a leer. Mhm. soxna Salimata Touré. kii. bu ma juróom moom itam. soxna Xaar Diop. Mhm. mooy a jigéen. waaw mhm. ah. ñii mooy fukki doomi Cheikh Amadou Bamba yi nga xam ne ñoom lañ fii. ka ko benneel mooy kee boo jégee raay ba. Abdou Salam Abdou Salam. kooku sa bàyyi nee na. Sëñ moo ko moo ko joxoon ay mag. ba mu wàccee neen yul ko Babacar ca njax na ko denc te na yow dëkk ba bu mu fekki kenn bu kenn fekki saa bay nee na kër bay ñëw du ñoo dem njax kër maam gàmmu sunu maam ne ana sëñ mbay maam gàmmu ne leen xur wee fa sëñ mbay dëkk sëñ mbay lay wax bañ diggee fekk sëñ mbay xëyee fii dem njaareem di siyaar yi sëñ tubaa naka mu jox soo ko sëñ tubaa rek sëñ tubaa ne ko ana sama ndaw ya mu nekk daka mën ko laggal koo kee du fekki kenn kenn du ko fekk mag ñi itam bi ko yoree te boobu xaw naa guddi ñu dem ca penku dëkk ba ne te ndajur dëkk ba boobu am sàq fa nekk ñu toppale sàq ba boobu mi ngi ci kees ñu defar ko denc ko foofa mais bu ñuy sëñ bay dikkee te ñu toppale ko saa bay ne ba sëñ bay dikkee da ana ndawi sëñ Tuubaa ñu ne ko ma dem nañ de mu ne ana kañ yor ñu ànd moom ba diggante boobu kër gi ak raay ba booba raay bi amagul aw xur ñu ànd ak moom ba ko fii lañ ko denc sëñ bay di ko wër ba yegg ba ne ak sa sëñ Tuubaa yi fii la wax sëñ Tuubaa day joxañ kookee mooy Abdou Salaam soxna Khoudia Diop mooy wajur wu jigéen waaw kookee moo tax suñu tubaab ber ko foofu dégg naa nag ci mag ñi ne bi ñu ko la maam Cheikh ne ko ñun da jëmm ji doonoo jaaxal mu ne ah ñu ñëw dañuy ne tax suñu tubaab ber ko fii daa ëppam daa yées mu ne ah xëy bisimilah jàmm ah sëñ Bamba ah sëñ Bamba doy na waar ah xëy lii taay làmp nu mu tudd ñu ko ah Fall loolu dañu ko wax mu ne mooy kii ah dënam doy sooy la muy ah, mooy kii moo tax suñu tubaab ber ah, moo tax suñu tubaab ber ko daana ah eh, eh, dëkk bi xam nga ni mu tudd ah Fall xamuñu ko de ah waaw wuri lu ci gën mu ne guta ah yootal nag mu ne guta mu ne fii mooy mooy guta pour Mbacke mooy guta ana njëriñ ñu ne ko Fall mu ngi nii ñu ne ana nii mu ne ah nattal fii mooy digg bi day teen ak ah, juróom-ñaari bundi firaw si ah, mi ngi nii ah sëñ Bamba ah sëñ Bamba dundi bi mu jooju nee na barabu maanaam teg sanu sorolu teg sanu njëriñ ba ci kaw anama la mbiri boobu sabab tubaab bi ci kaw armal may tëgg fii mooy digg bi nga tax suñu tubaab def ko fii boo jógee foofu na ko ko permettre nga seet sa oto rek ñoo yem képp diggante jaarima tubaab fii mooy xaajal noonu moom lañ xam ci euh, ci nga daal li suñu wajib wax na ko ci loolu lañ xam li ma lay wax ci sama laa ko déggee te sama bàyyi suñ tubaab ko joxoon mu jox ko suñu bay jaxate daana jóge fii tànn suñu Abdou Kan moom ci téeméeri at yu manqué juróom te li ma wóor moom a gënoon sawar bi muy dem ku tuuti la woon dundoo Sëñ Abdou Khadir waaw bu Sëñ Abdou Khadir masaa ñëw fii da koy wool na ko ana Sëñ kan li ma saa bay moo nodd ba di fii ak Sëñ Abdou Khadir ngaram bi jaar moo fi nañ ñaan te dellu ci barab yi ñuy ko bismillah fi mooy nekk <laughs> yéen a ngi defar waaw ne ko fii mooy fii mooy fii mooy nekk fii la liggéeyee liggéey bu ngay dégg mhm. da nga dégg ñu naan ah, sëñ bi da doon ah, toggal kafe waajuram waaye sans bay ne ah, booba sëñ bi du ko joxoon pepp ne ko sox ko def ko cere ci guddi bi mu ko soqee booba jant baa ngi sox mu foofu ko sebati ko wal ko lay ko mooñ ko booba jant bi mu ngi sox muy taw bi muy muy taw nag amul lu mu taale mu jël poqe yi daan rabbe la taale taal bi sotti gaal gi suñu ah, ñëw ci ah, ci gaal gi mu sotti ko ci pañe bi xar gaal gi def ci gaal bi ci gaal bi xam bu gaal gi ba mu jeex mu xar si la bu mag bi eggale taw bi loolu néeg ci néeg bii li ko soxla si liggéey Cheikh Amadou ci néeg bii li ko woon ci sayir di ko di ko nàmpal ba mu wàccum soow ba mu wàccum soow la laaj lu nga tul ànd ak moom ci lan moom tëdd ci suuf Abibullahi mii ci néeg bii la feeñee waaw moo tax sëñ Mbay boo demee ci biir wooyam yi mi ngi naan la jaaraama jaara ku am jaaraama yaa ko waral sa doom a gën ñëpp yaa gën mag ñi gën gone yi yow soxna jaara déggal saw ŋàññi rot na asal yaa jur ki jëm ci boroomam woote ñëpp wuyu góor ak jigéen ak mag ak ndaw koo fa gis mi ngi jag te yaa waral ñëpp jag baykat nga bay nga bayu xamal ne waa penku ak waa sawu ñëpp a ngi mos ci sab liggéey ak biig yow doo ko dee fi moyu daawoo werante ka songante dox di xuloo daawoo bañet ku la yeb daawoo jayoo ka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 yéen moo tax sëñ Muxtaar mën naa ñaanal lool xam nga may woy sëñ bi yéeme woon na ay mbirum sëñ bi moom la noonu waaw liggéey bi daal noonu la demee ci ñi Soxna Jaara ci li nga xam ne suñuy wajur wax nañu ko waaw ndax lu ma lay wax it mooy la ma la waxoon ci sama wajur lay déggee soo ci laa sañ a nett ni ndax ki fekkee dafa bukkul ak ki fekke wut ndax xam nga nett li dafa doy waar ah ki ngay wax loo xam waaw ndax fi ne lii ngay jël nii boo ko jëlee mën ko nett di feneen ñaa sëñ Kande li mu nett li bokkutu ni ma déggee woon ku ne dégg waaye li ma lay wax ci son bay laa ko déggee man waaw ki fekkee nag waaw dafa bokkul ak ki fekkee kenn mën ngaa déggee neneen mm-hmm, mm-hmm. waaye man sama bay lii laa daan gis mu nett mm-hmm. bu mag ñëwee lii da koy wax kon nag foofu laa mën a jaar mooy Habibou lépp mm-hmm. ah. mm-hmm. siyaar na fii heure bii toog ji ñaan ba yàgg mu ba mu bëgg a jóg nee am la ko ne fii de lu fi waay ñaan di ko am ku fi jéggalu it des na la jéggal nee na mu daal di eggaat foofu ñaanaat ba mu siggee la ne ko man de dama ne am na aji wax ju moo wax ne ba ma toogee fii de am na ku ne mm-hmm. lu fi waay ñaan da ko am ku ma ku fi jéggu da nga la jéggal waaye gisuma jëmm ji de loolu Cheikh Abdou Lahad Mbacké moo ko nettali lu fi waaye ñaan di ko am ku fi jégul jéggal la kii mooy Abibullahi kii la soxna jaara mu jëppoon alhamdulilah mooy caatu maam jaara kii moo war a dëkk bi loolu dégg ci xuru Mbacké rek jëmm ji moo ko waral wéetaay boobu mu doon wax Cheikh Amadou Bamba ne ko ni ma ni ma bàyyi ma wéet bu doon yow dama la bàyyi nga wéet moo waral ñu indi fii ñii waa kër Sintuwaay jëmm ji tax ñu ko fi nooy la mbir moom i demee bala fal xel rek moo fii kooku moo doon jëwriñu maam Mamadou Sëriñ Mbakke loolu la mbir moomu demee moo tax ku fi toog war ngaa ñaan li nga bëgg di jégalu li nga yàlla li nga tooñ say morom ak say borom ndax lu fi wàññaan kat ko am sàggan nag mi ngi ci dem ci dex mar tilim fexe ba naanoo ca sangu ca puutay sër du ci ndox mu yow ak càggante bi ñaan leen li ngeen bëgg te fas ci li ngeen bëgg lépp yàlla Sëriñ Tuubaa yàlla nañu ko defal parce que Sëriñ Tuubaa waaw euh, ku yéeme woon la ndax loolu ko sëñ ba jaxate wax keroog ba mu fi ñëwee njëkk ñëw booba aw fas la war ñu ne ko sëñ bay de balaa génn dañoo nodd mun a sant bi noddal mu daal di nodd sëñ bay ne tëll ci kaw fas bi daal di egg suuf ne ko mënoon nga ne euh, Babakarou rek mënoon Babakarou rek ma ñëw mu ne ko waawaay dénk ma rek jël ko woy woyam woy yi fukki woy yooyu ak yaar ci la si Abdoulaye dund ba xëy wàcc bi liggéey ba mu ne ko Abdoul Ahad yàlla na sow fan gudd Mbàkke nga wér te sax ci jàmm ku yiw ak jaamu yàlla gu wér farlul te wéy yàlla na ngay for dog bu sedd sa xol te mucc ci ayal ko ndox sax si def la toppal sa mag Moustapha bul génn yow ndigalam ngir mag mu mat mag la man ñëpp sëriñ te du war jëfal te bul faale nit bul geesu nit ci sa jëf na yàlla tax ngay jëf ak yónneen ba ak kala jur kalay mënal dara moo jar def lëf ak bàyyi lëf te kooka nag moo di rabbul xar si yàlla nu yor yar bii nga yor yor ko biir ak bitti moo di sa kee moo gën ci yow nit ñu baax ak kër yu baax ak ki jur sa a gën ñëpp teb yar dong dong la yor yoral yaram ba te koo ci dee ko yar sa a gën ñëpp ab yar ngir dalay jox a jox ab yar ba ngay ama xam ab yar te doo mos yar du yëkkatib yar di teg nit waaye moo gënu nit ñay teg nitub yar a kay jannee kay yeew a kalor na ndam yi nga am loo ci am ko ci ndam xamal ne moo ko waral ak cant war na gu tar ak cant war na ci ñoom ak yow gu rëy gu rafet gu day ne bàjje gudul yem fenn mukkati far loo gis ci am satu moom yi ci yar ak jëfi yiw xamal ne moo ko ca def ji wax ku nekk la bir abdou ki am satu ak mbàkkee ki balla asan yow say najaay a ngi ñëw di sàll kenn du ci par fëxal te raw am nga ab yóbbal fëx ak raw a des ngir baaxi bokk di ab yóbbal na itte ji sar saral te wéy dëgg bul yem ci najaay ak i baay yeg ndey di sant ko doyloo seeni cër lu ko jar foo seeru kuy foo ko doyloo ab cëram na nga wut loo doole yow ci sa cër bii ndax nga am cëri jollil ca kaw bul fexee jëm suuf suufa kay waxadan ci jolli ngay waare ab xiiban ci ngay noti mbër rega yi jàmbur ku koy doyloo ma lékku a xam buurub araska farak bër yépp yàlla na nu far yow yàlla na ngay wéyee kay jëm kaw di dolli ku ndam ba jiitu kaw te nangoo suufe kuy amutul abdul ahad yow sa yéenay bopp yàlla na la dal loo bëgg yàlla nga am loolee te ngëpp ko wér fukki woy la ak yàlla ci li Seex Abdul dund ba xëy jeex yàlla na Sëñ Tuubaa defal yëpp saa yi moom bàtti na barkeb Sëñ Tuubaa nan ñaan leen bëgg nag te dellu ci tey